وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وجهت كلي إلى ذي الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن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 ganna bi nu sante sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci Mustafa sallallahu Alaihi wa sallam di jaajëfal al shaykhul khadim no ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokel di ñaan serigne touba Cheikh Mahamadul Muntaqa sun borom dolli ak wir dolli ko kàttan ako fan ba lim yene liggéey Sëriñ Tuubaa lepp mo def ko ci sagom te lepp nu ànd ko mom ñaanal ko njabotu Sëriñ Tuubaa gep diko ñaanal sun bopp nun bi Sëriñ Tuubaa yep nu dikkaat seen mission xam sa dine mi gen min fi ci seen television Lamp Fall ànd ak bi ci 101.7 ak ci Dakar Touba muy émission bi nga xamné ne waxtu ndax dañ ci tan ay thèmes yo xam da fay depp ak jamono jëm ci walu jangali diiné ñu di jangat ci émission bi émission bu gën min seen mbokk Sëriñ man bakki bax ko taxawé tay jëne ñu bëgg ñew ci tom bo xamné ne dañuy dëgmal koor diko wajal ñu wara xam nak koor lañ ca wara xam ba lañ ca ag ci ahkam yi muy atté yi mu laaj jëmmi eh, ap àtteem ci l'islam yañ ci diglé yañ ci tere ak dal lañ ci wara xam lépp ñu xam ko kon lool ci lañ bëgg a émission bi ngir nit ñi mëna bayyi xel ko lañ ci wara a taxaw bala ñoo caa àgg eh, baat bi arab asawmu arab asawmu lay ko koor asawmu mooy jàpp rekk jàpp mooy jàpp gi nag boo ko te jàpp jàpp téye waaye jàpp bàyyi lay teg mooy jàpp mooy jàpp sa bopp ci dara daal mooy téye sa bopp ci dara xam nga da dégg bu bu bàyyi lekk ak naan ju jàpp jot na jàpp googu mooy téye sa bopp ci lekk ak mooy dootoo mooy bàyyi ko ak saw mu loolu lay tekk ci ci ci ci loxo mooy jàpp gooy jàpp ci mbir maanaam mooy bàyyi gooy bàyyi mbir moo tax alxuraan bi ko sunu di tudd non la ko tudde fa quli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al yawma insiya ci lam ñu bi wax mu wax sona maryama ne ko bu nit ñe moy bi ko maye dom te amul borom kër mu ne ko su nit di ciow ne len rek tay dama japp koor du ma wax kenn kon ñaka wax fofu sawmu fofu ñaka wax lay tek moy tey sa bop ci wax baña wax sharia nak moy bàyyi mboolem mai biir ak banne pay liko dalé ci fenk ak fajar ba ci sawu jant ci yene ci ak jamu yalla bu ne koor ci teunk ci tënk bu gat moy lolo moy da ngay bàyyi mboolem bànneexi biir bàyyi mboolem bànneexi pay liko ko ci fenk fajar bo jant bi so te yene ci ak jaamu yalla xam nga boo defoon yooyu te wo ci dara du tuddo kor kon lol moy kor ci ci tëng nga ni lam na nek lu mag lol ndax kor jaamu yalla la gog yaram muy and ak pas pass xol ba koy jiitu jaam bi di sakko jegal na borom subhanahu wa taala moy yaayo ci lolay yool bu mag mag ak pay ak tiyaba borom tabaar borom tabaaraka taala digg itam way woor ji seen koor may ay ay may yu màgg màgg màgg boo ci la lami yonent yàlla yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam jël nañ ci abi xurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne xaala azza wa jall kullu amali ibni aadama lahu illa siyam فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم, يوم, يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهر ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو خاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك wa li saa'imi farxataani yafraxuhuma isaa aftara farixa bi fitrihi wa ida laqiya rabbahu farixa bi sawmi na yonent bi nee na sunu borom nee na kon xadiisu xusi la sunu nee na doomu aadama jëf jum jëf moom moom jëf jëf ba mu des koor koor ma man yàlla maa ko moom tam maa koy fayal sama bopp ne ko koor itam pakk la pakk la buy fekk nit ci lépp lu koy gàllankoor mané ko nak képp ku wor ci yeen benn bis bu mu wax waxi caaxaan bu mu jëf jëfi caaxaan bu mu saw coow lu bari bu mu itam wax nit lu lu ko wax ku ñëw bëgg saganté ak mom wala mu bëgg xex ak mom na ne ko man dal dama wor man dal dama wor dañu giñ nañ ci ki nga bakkar Muhammad mi ci loxom mu yàlla xeetu ñu aji wor ba ngon xam nga xéet ga du neex ki wor tok ba ngon nanu sa xeetu gémmiñ neex mu ne xeet googu nag moo dàq fa yàlla bis penci xeetu misk misk di lay koloñ bu neex mu ne itam ki am na ñaari bég te muy bég su dogee dana bég ca doggam dog waaye su dajee ak boromam nag fa ci la bég may dàq ca lam koy fay ca kooram googee kon bu sun sun bon ne euh, bu fekkee dafa berkoor nekkoor maa ko moom te dëgg dëgg na jëf yëpp yàlla leen moom waye bam ci tan jaglel ko bopam askane ko bopam day day wane màggaayu màggaayu kor ndax ko day jam yalla goo xam ne kenn musu yaa jaamu ko dul yalla bu julli yéefar yi daanañ daanañ daanañ am na ñoo ci taxaw li daa magale seeni xirem ta taxaw ci julli la bok am ñoo ci ci ruko mu japp seen wam seug ci leen magal seeni am ñoo ci sujjoot len daa magal seen xiram yëpp am na ci julli bude itam ci ci ci ci joxe muy asaka am ñoo xamni ci ci joxe lañ da mag seen xiram mooy def ay tour def ay sarax jam yalla boo gis ma sa jam xiram bu dess des koor mom ku fa yi musuñ jam magal jenn jamono la jam mo dañu wax koor kon lu sori di sal la ndax dafa neub koor dafa neub bo wooree ko ni dama woor man ko baña xam wooteeg julli ak xaj ak yu mel nga xam ne dafa fis man ni mën na caa gisal waaye li nëbb moom kenn mënu caa gisal jëleen ci abi Saïd Xudri xanaa kay gisal dama di foo dem ne damaa war boobaa mu gisal la waaye nag war moom fekkee na euh, da ngaa war rek ngir yàlla moom kenn du ci xam dara jël nañ ci abi Saïd Xudri radiyallahu anhu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne ma min abdin yasuumu yawman fi sabilillahi illa baada allahu bi dalika wajhu ani naar sab'ina xarifa ay sab'ina sana nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul benn jaam buy woor benn bis ngir jëm yàlla lu sun boon dana soril jëmmam ja dana ko soril sawara lu toll juróom-ñaar nawet juróom-ñaar fukki at dox dana ko soril sawara rawaahul Buxaari yu Muslim جيلن تي عبد الله بن عمرو بن العاص باتاي رضي الله عنهما مو خني يونتي بي صلى الله عليه وسلم حنا ني الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان axrajoo ahmad nee na koor ak alxuraan ñoom ñaar dañuy ram ramm ëllëg bis penc na koor day wax ne yow suñ borom ay kii day maa ko teewoon a lekk teew ko na bànneexu ci bëccëg ay tiin ma ci moom rekk tin ma ci moom alxuraan ne ko yow kii day maa ko teewoon nelaw guddi dafa maa taxaw taxaw di ma naafila kon nag tin ma ci moom sun borom tin leen ñoom ñaar ñu bokk la ramm koor nag dafa séddale ko ay xaaj ay am na koor go xamne farata la am koor go xamne sunnal. dañ ko sunnal am koor go xamne dañ ko sop am koor gu ñisib am koor gu haram kon man nga ne kon juroomi atel sam yeb ci nak koor dana ci tabbi bu de koor gu ñu faratal moy cheikh ramadan moy wer wi ñi ramadan al muazzam woor ko farata amul benn jullit ba am sañ-sañu ñàkk ko woor te amoo ca soo ko defee bakkar bu rëy rëy am nga ko ca wala boog koor goo xam nit ki ko warlu ci boppam li ñu tuddi nesër su ma yàlla mayoon nangam de ñaar yooyu yu yàlla mayee ko def farata la ci yow euh, kon kooruk euh, farat kooruk ramadaan wala kooruk mooy kooru farata bu dee koor gu ñu sunnaal nag mbaa gu ñu sopp mooy lépp lu génn ramadan la naan koor woor ko sunna la ci misaal ñu ne woor ñetti fan ci weer wone ne sunna la woor yowma ashura wala yowma tasua sunna la yenn bis yi xam ne dañ naan baax naa woor nag yooyu mooy mooy mooy woor yu ñu sopp ci diiru at mi bu dee koor gu ñu xaraamal nag mooy koor bisub kori ak woor bi su tabaski ak ñaari fan yi iya, ci seus wala ñetti fan li ñu tuddé ayyamu tashriq yoy ya, ya, woor ko dafa xaraam bisu koor woor ko dafa haram bisu tabaski ak ñetti fan yi ci seus woor ko dafa haram bu dé koor gu ñu sib nag mooy koor mooy mooy woor bisub sikki sàkk weeru feeñ naag feeñut amul lu leer nga xey woor loolu lañ ko sib wala tan bisub àjjuma képp di ko woor loolu lañ ko sib kon juróomi xajjo yooyu ci la koor séddali euh bu ci nak dañ ko leer ci kanam inshallah war woor Ramadan nak moy war wer koor ben ponk la ci ñenté ponk lis manam moy ponkum ñentel ci ponk juróomi ponk l'islam yi moy ñentel bi Don gem don doon farata di lu sax ci alquran ak sunna ak daje ak mboolem xeet bi koor ñu ngi ko farataal ci wéru sha'ban ci atum ñaari ci gaday gi nga yonte gàddaay ba ci atu ñaareel ci lañ door a farataal koor ci moom ak ci jullit ñëpp chahru ramadan itam làmboo ngëneel lu màgg a màgg a màgg jëmi weer wi ak woor ko lu ci nag dafa am ngëneel ak jaamu ci yàlla jaamu yàlla ci anam gu gu matale euh, ngëneel lu màgg loo xam ne yeneen yeneen féete na ko ko yeneen weer yi ci des yëpp ngëneelam loolu nag ay ahadis yu bare bare bari root na ci yu koy wane di ko tegtale dañ ci tudd ba ci njëkk mooy li Ahmad solo ak Bayhaqi ak An-Nasaa'i jële ko ci Abi Hurayra radiyallahu anhum mu ne yonente bi alayhi wa sallam wax na ne boo weeru koor dafa dafa dafa mooy leen xad jaakum shahrun mubaarak iftarada allahu alaykum siyaamahu taxu fii abwaabul janna wa tuxlaxu fihi abwaabul jaxiim wa tuxallu fihi shayaatiin fiihi laylatun xayrun min alfi shahr man xurima xayruha faxad xurim da leen wax ne weer wu màgg màgg day agsi na ci yéen woo xam ne yàlla dafa farataal ci yéen ngeen woor ko weer la woo su agsee dañuy mboole mboolem bunti àjjana yépp afal tëj mboolem bunti sawara yëpp jéng mboolem seytaan yi ba dañu mën a yàqal kenn ne ko am na ca guddi goo xam nag moo gën junni weer jaamu ko yàlla jaamu yàlla guñ nangu moo ëpp junni weer yoo jaamu yàlla jaamu yàlla guñ nangu junni weer mi ngi toll ak juróom-ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer quatre-vingt-trois cent quatre mois te lool ñëpp amuñ te féex dund lu toll noonu génn guddi xam boo ko man le dunde mel na nga ku dund lu toll noonu lépp nga jaamu ko yàlla jaamu yàlla guñ nangu ko loolu kon gudd lu ko mag mu ne képp moo tax moo tax képp ku ñu xañ xañ aw yiwam xañ nañ la ko ñàkk woow yiw ñàkk nga mboolem yiw yi ñaari mooy jël na ci arfaja mu wax ne kuntu inda atab atabat ibni farqat utbat ibni farqat wa huwa yuhaddisu an ramadan xaala fa daxala alayna rajulu min ashaabi muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam falamma ra'aahu utba haabahu fasakata قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفره الشياطين قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان رواه أحمد neen dañoo demoon ci Utba muy waxtaan ak ñun Utba du Farxat muy waxtaan ci ci koor neen ba yàgg kenn ci saxaaba yoon saa su dugg si mu mu warmal ko lool daal di noppi daal ne ko waxtaanal nu ci koor mu ne dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wax ci Ramadan ne dañ ciy tëj bunte sawara yëpp tijji ci bunte aljanna yëpp jéng seytaane yi am na malaaka yi muy woote itam ci bis bu set ci ci ci koor gi ne ko yow mi lu baax tax a day wax ne yow mi lu baax tax a jóg bay boo bég te xam ne lu baax a ngi ne ma mën a wenn yu rëcc la yow mi lu bon tax a jóg na bàyyi boo gàtt te xam ne doo am ndam ñaan malaaka yi loolu lay fanaane wax bu ba set ba ba ker ba koor ba ker koor gi di jeex ñetteel bi jël nañ ci abi Hurayra radiyallahu anhu wax ne yeneen ti bi sallallahu alayhi wax na ne as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza tunibatil kabair rawahu muslim nee na sallallahu alaihi wasallam waxna na ne julli jurom digante julli gëna ak moram ja ak digante aju julli aju gëna ak moram ja ak digante koor gëna ak moram ja day fay la ci sen digante ci ay bakkaar soo jullee tisbaar ba takkusaan nga julli li dox ci diggante tisbaar takkusaan dañ koy far ci bakkar so julli aljuma aljuma ji dess nga dem julli ji la dox ci diggante ñaari aljuma ci ay bakkar dañ koy far so waré weeru koor weeru ko dess nga waraat li dox ci diggante ñaari weer ci ci bakkar dañ koy far waye li ñu tun jublu moy bakkar yu ndaw yi bakkar mag moom ci tuub rek lañ koy jéggale waye bakkar yu ndaw mom sun doon dal koy faral ci bo saxalé julli juróom di julli aljuma di war weeru koor li dox ci digënté ci bakkar yu ndaw lépp dañ la koy far ci ci lu nga di ko tuub bi batay jël na ci abi hurayra radiyallahu anhu mu ne bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man saama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi neena kep ko war wero koor ngir gëm yàlla ak fàggu tiyaaba def na ko jéggal li jiitu woon lépp ci ay bakkaaram ba tey foofu it bakkaar yi ndaw lañ jublu ni ko ni ko waxee ci xadis bu njëkk bi bu jiitu bi rawaahu ahmad xam nga ne kon weeru koor ab ponk la ci ponki lislaam yi moo tax kon ku ko mabbu jëmmi lislaam nga mabbu ndax lislaam mus mënta temm maanaam mënta tax taxawaay bi jub lu ma ci ñeenti juróomi ponkam yépp xam nga aw fas boo dagoon benn tànk ba dootu mën taxaw taxawaay bu jub wala am ñeent tàgg boo dagoon benn tànk ba dootu mën taxaw taxawaay bu noonu la koor mel ci ci ci ci lislaam noonu la mel ci ay ponkam mooy lisaan juróomi tànk la am benn tànk ba koor koor la soo ko daggee dootu taxaw taxawaay bu jub dootam istiqraar maanaam dootu mën a temm kon juróomi ponkam yëpp ci lay mën a taxaw taxawaay bu jub bu ci ayib moo tax ne képp ko dog ci beccu ramadan te tay ya ko te eh, amo ngant mbugalam ëllëg mbugal mu tar lay don mu metti tayit bu woran diru jamono mun fay bis booba woran jamono bam jeex mun tafay bis booba bam dog ta tay ya ko moo tax sa sama xone man aftar yawman fi ramadan, fi rukhsatin rakhasa allah lahu lam yaqdi anhu siyamu dahri kulli wa insamahu yen sa salam nee kep ko dog ben bëccëg ci weeru koor te tay ko ci lu l'islam ko may mu dog maanaam moy ngant su woron jamono jeppit mun ta fay Abu daud moko solo ak Ibnu majah ak tirmidhi kon hadith bo kon ak xoppe nga ci gotar ci ki am fitu hoti war may yalla azza wa jalla loolu nag tekkiwul na dañoo tëj buntu tuub déedéet ki ko defoon ngir ñàkk a xam su ko tuubee tuub gu sell dellu ci yàlla rëccu lafaatu yàlla jégal ko incha allahu taala ko tawaabun rahim yàlla ab jégalaakoon la ko bari yërmandi la weeru koor ci lan lay saxe jumhuru muslimin ñëpp dëppoo nañ ci ne weeru koor du sax lu may ci gisu weer ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne soomu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana salatina yawma rawahu buxaari wa muslim nen dee woor ci gisug weer tey wooree ci gisug weer mooy su fekkee da ngeen séentu weer yi nag mu mu mu mu niir mu xiin waxut mu ñàkk fen de waaye mu mu sow bi niir rek ba gis leen ko matal leen san baan fan weeri fan kon la mooy digal yéen tu saaslam kon dana doy nag gis ko daal ci doy gisug ñaari góor ñu maandu ñaari góor ñu maandu suñ ko gisee wax ne gis nañu ko eh, ñëpp dañ caa war a sukkandiku war mashahidi adli suñ seere ne kon ñaar ñu maandu gis nañu weer wi war na leen ñoom ñaar ñu war waaye war nañu jot li itam xabaar ba eh, ci kilifa ga kilifa gay joxe ndigal siiwal ko bu ko defee mboolem yëpp di war ca lolo kon mukallaf bala ko ko war a war mooy mu sax ne weer wi gis gis na ko moom walla giseef na ko loolu suñu bon ne fa man shahida minkum shahra fal yasum képp ku gis weer wi yéen na ko war maanaam ay jooyu mooy képp ku gis weer wi ci mukallaf yi war na ma war na yéene koor moom war naa xibaar nit ñi yitte ci ne gis na ko moom gis na ko ci ci ay bëtam jot li ko itam xaakim bi joxe ndigal moo ne ne kon gis na weer wi ci ñaari bëtam su fekkee ka ko gis na day kenn waaye nit ku baax la ko ñëpp xam ak baaxam ñëpp seen ko ak ak mandoom ba tey mas ca sukkandiku ñaari ñaari maand la ñu waaye ba tey bu fekkee day ku baax ku ñëpp xam ak baaxam ak ku sellam ba war na ci nit ñi ñu ak ci xaakim bi ñu dëggal ko ca loola an woor ànd ak moom su fekkee nag xaakim bi da ko mu ngir am na benn illa bu mu ko jamee ci ñàkk a maandu wala am daal lu mu ko jàpp ba tax dëggalu ko moom mi gis moom koor war na ko moom mi gis koor war na ko li ma wóor na ko ne mi ngi gis gis na weer wi parce que gis naa ko xam daal lu xel mat rek wóoru ko war la am di du woor parce que fekkee am na gis na weer wi ci lu wér <coughs> donte nit ñi doy looñu na war li xam li xam ne ashahrul xamar yi mooy weer wi ñu sentu leg leg mu nek ñaar fi fan ak juroom ñant leg leg mu doon fanweeri fan moo nak waru gal la ci jullit ni ñuy fuglu bu baax baax farlu ci sentu wer ñu ba dañu sagane sentu wer way lu mat farlu la sa bu ñaar fukki juroom ñant wer amé ci wer wu mëna doon buñ ko yamal ci koor koor rek wer wu mëna doon sa bu ñaar fukki juroom ñant ñepp ma ci sentu wer wi fekke gisun wer yu ñu batal wu fan wer fan Lol, nag bu dee mom moom eh, loolu sax na fi moy ñaar fan juróom-ñeent yonent dañ yene ci jumaaji ji sëriñ bi neen ne ñëpp maa seen ci yori ko ci xam lu nga yëgli ko dañ ko wax ci jumaaji ñepp deg ñam ñu wax dañu dem sentu ji ñepp sentu suñ séentu woon dem ci kër Sëriñ ga tok di eh, ubbi téléphone bi di xaar xabar yi ngir ko ko ko woote ne gis na ko suñ toge ba tamit si masé ken wootiwut ñom ñu woti ci kër yi diine yëpp woote Tiwaawoon woote Njaasaan woote eh, Kaolack woote ci mboolem këri diine yëpp laaj ndax gisuñ ko buñ ne bu kenn gis ko nag ñu jot li nag eh, xalifa bi ne def nañ nii bu ko def fekkee gisuñ ko fenn mu joxe ndigal ne kon nañ matal fan weer fan fekk jox nañ ko jox nañ ko xibaar ne bar sàng bar sàng gis nañ ko mu ne nañ mu joxe ndigal ne kon weer nañ jàpp ne weer bi feeñ na bu dee koor ñu xëy wor bu dee koor ñu xëy wori Tuubaa moom weer ci weer yëpp lañ ko saxal du weer koor Tabaski donc waaye weer yëpp lañ ko saxal weer wu ne dañ def noonu kon gisu weer kon ñaar ñu maandu bu ñu ko xibaaree rek wala génn góor ak ñaari jigéen ñu ko gis tamaandu bu gisee weeru shawaal eh, ak weeru koor lu mu ci mën a wala weeru bu mu doon ma doon waa dañ ci sukkandiku ci gis-gisu mbooleem boroom xam-xam yépp waaye koor nag ana kañ lay war nit wala ba kan la war kan la koor war xanaa ab jullit boo doon julli ba noppi <coughs> nga amum xel jot gént mooy mësër euh, ba noppi am wér goo xam ne may na la kàttanu koor kon danga ci déggee ne kon ku dul jullit koor waru ko ki doon julli waaye ab dof la koor waru ko xale bi jotagul gént may yi mësëragul koor waru ko bu waree nag baax na waaye waru ko ke febar babu mu babu ba mu waree jànkonte ci ak jafe-jafe kor waru ko ponki ñaar la mana faratay kor ñaari farata lam an niyatu wal imsaku anil muftarat may yene ak baye mbollem li dokor bisub lem liko dalé ci fenkook fajar ba ci saw jant nalisun bawane wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-abyar min alxayt laswad min summa atimu siyama ila layl sun borom na lekk len naan leen ba keroo gu wex gi wagn gu win gi defes ci wagn gu ñul gi man nga dem ba xamé wagn gu wex wagn ñul ci jëmmi wagn ni am ko xam wagn gu wex ak gu <laughs> ñul tag saa bu xoolee ba xàmmee leen rek doo jàpp ne jaar waaye jubluñ ci wëñ yi da caa jublu mën leen na mu guddi gi ak leeru fajar gi sëñ ba nga xam daal leeru fajar gi ràññ ko ne ci biir na mu guddi gi rek ñoo foofu la jàpp jote mooy fenku fajar mooy bu fajar fenkee rek waan tàmbali naa leer tuuti so ngeen matal nag seen koor ba ca guddi ga mooy ba jant so mariix soogu wér bu dee yéene ji yéene moom xam nga xam nga ne farata ci julli yéene farata la ci asaka yéene farata ci xaj ni ko noonu yéene farata ci koor mboolem gépp jaamu yàlla gu ñuy jaamoo yàlla rek asa wa jàlla yéene farata ca xam nga it ci barab yu bare bari ci téer yi ne yéene may alxasdul muqaarin lil fi'l mooy jublu xol goo xam ne dafay lëkkaloog jëf ja kon da ngay teewal sa xol ci bi ngay jonjo ak ponk bi ñëk ci ponk jëf ji jëf jaam yalla gi nga def ci misal boy japp fa faratay tam la moy fa ngay rax sa xana xar xana mooy ñëk ci faratay japp fofa ngay tabale sa yene boy boy bu dé sangu bi nga tambali soti ndox mi ci ngay tabal sa yene nga kon yene ji ak jëf ji dañuy jonjo soy julli fi ngay kabaré kabar xarmal foofu ngay tabal sa yene waaye koor nag sartuñu ca yene ji jonjo ak jef ji bu yene jef ji yi yeb nak yene jef ji day jonjo bam mu des koor koor mom yene ji man na jitu laata ngay ag ci koor gi may buñ sento weeru koor ba gis ko rek man nga fasé fofu sa yene xam nga koor gi fajal lay tambalé waye man nga daal di fas yoo sa yéene ci guddigi kon jonjo jonjo wut ak jef ji so ci guddi man nga yene itam war wer koor yeb man a yenn yene ji man a fas naa yéene war wer koor wi nga xam dootoo iya yeesal yéen yi li fekk xanaa nga dem ba am gàntu dog ci koor gi kon bay tàmbale xaw da nga iya yeesal si yéen waaye li fekk dogo iya moom yéen yi nga ci guddi gu njëkk ba tey mooy continuer ci koor gi bis nga bari ko si yéen yéene boobu ne lu ñu sopp la rek waaye yéene ja nga xam ne moo nga yéene ci guddi gu njëkk doy na ci mboolem weer yëpp kon waxtoom mooy guddi kon waxtu wu yéene mooy yéene waxtu yéene kon mooy guddi ku yéene gannaaw jant fenge maanaam xëy nga daal ndekkew gore nga ne ah gannaaw musuma dal ba léegi daal naa far wor loolu kenn du ko jàppe ko wérut ndax yéene ji ci guddi gi la waroon moo tax eh, ni ko noonu eh, képp ko xëdd itam képp ko xëdd xëdd mën naa wuutu yéene nga xam mën ngaa xëdd rek lu ñu nga yéene ndax ndax ki ndax ndax eh, ki xëdd dafa am yéene koor ki xëdd moom mooy dafa dafa tegtal kon dafa dafa yéene koor dafa dogu ci koor kon moo tax xëdd googu doy na wala fi yéene ba tey malik yi dañuy sart mooy li ma waxoon léegi ne euh, dañu wax ne yéene jiitu fajar ci gépp koor farata la moo xam koor farata la moo xam koor nafila la waaye faa wara da nga koy yéene yéene ci guddi ga tegtaloo ci xadis bi ahmad solo ibnu xabbaan jële ci soxna xafsa radiallahu anhum ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne ku booliwul maanaam ku ku ku ku jiitalul eh, yéenem jiitu fajar amul koor kuy woor te yéenem jiituwul fajaram amul koor maanaam yajma siyaam xablal fajri fala siyaama la maliki yi itam dañoo waral ci guddi gi ñëk kon li waxon legi léegi euh, mu tàbbal yéeneem ci guddi gi njëkk euh, koor gépp waaye nag guddi gu nekk nga nga nga yéene war bis ba ca topp loolu mi na mustahabaat maanaam dañ ko sopp rek ñu layale ko euh, ci ne weer wi lépp genn jaamu yàlla la genn jaamu yàlla day mel ay bis la yu teqali waaye genn jaamu yàlla la lol te masala moom ay munaqasha di bare bare am na ci borom xam-xam yi waaye Malik yi mu ñu tukki tegtaloon day wax ne yeesal sa yéene warugal la ci képp ko dog kooram maanaam da nga yéene won nga ci bisu njëkk dem ba yag nga am dok soy sooy wat faaw da nga yéene wat mooy ki dogon ngir ngànt dafa wéri di won wala dafa dafay tukki tukki bu ko may mu dog wala dafa gis dara te xay ni façon dafa gis règle bu dee ci jigen wala meret ñaareelu ponk bi ci koor muy muy muy ponk ñaareel mooy mooy téye sa bopp ci mboolem yuy dog mooy téye dog yëpp tegtalam mooy aay jooju waxoon léegi bu ku la ba leen naan leen ba keroo leeru fajar gi di fés ci lëndama guddi gi kon jàpp ci ni ko aay ji sàkkoo kon day tàmbalee kon ci waxtu fenkook fajar bata bi ci ab xaj bu néew ci guddi gi mooy jant kon war na ci julit bi muy fuglu sow jant fenku jant maanaam muy fuglu sow jant ma sa bo xamé ni nak li tay jant bi fenk maanaam li tay fajar fenk la bëgg wax bok fenku fajar li tay fajar fenk ay minute ji dess juroom minute mu téla bayilek. ngir ngir lemtu bala nga ci mooy su dog ja a jàpp daal su desee juróomi wax juróomi minute nga arrêté sa lekk sa naan ngir ngir ngir ngir ak lémp gi muy gën a wóoral su jant sooyee mu nga dem ba mu wóor la sona ba noddukat bi tàmbali nodd boo nag foofu la dog di dagane gaaw a dogin nag moo gën a yay mooy fu mu jotee rek nga gaaw dog bañ koo yeexe te dañ ci ñëwaat ci kanam kon loolu mooy faratey mooy ñaari faratey mooy yéene ak eh, bàyyi luy dog ak lama andal ci ay leral koor amna ay sunna amna ay mustahabbat mana amna ay sunna ak yuñu ñu sopp am it ay taggen yo xamne ne dañuy sàkko ci ajewaat yi mu sàmmoon teg teggin yooya ba ci njëkk ci kor koor mooy xëdd du sunna la sunna la suñu bari bari sagane nak moo tax dégg ñaan man man du ma xëdd bëkkoon moy moo tax ko sunna rek sunna la ndax Buxaari ak Muslim ko ci nekk solo na jëli ci Anas ibn Maalik wax ne yonent bi sallallahu wax ne tasaxaru fa inna fi suxuri baraka de leen xëdd ndax xëdd barke ngi ci jëleen ci miqdaam ibnu maat yakon mu jëli ci yonent saa sallam wax ne aleykum bi hada suxur fa innahu huwa alxidaau almubaarak rawahu nasaa'i bi sanad jayyid nee na maa ngi leen dénk xëdd ndax xëdd kat ñam la wu barkeel Mana maanaam barke boobu mooy dafay degeural aji wor ji ci mu meuna jokale ko kooram ba guddi diko ko sawarloo di fudd aw yaramam diko may katan ba ma deko tangor yi nga xam mo takko ak hayaw yi nga xam ne yek tangor ci nit nga moy may aji wor mu mën am kàttanug mën a e, konde ay liggéeyam ci farlu ak cawate ci lu may am mi am gen loru wala mi walami wala wala muy mi melni dekk ndax dekk xam dootoo dañ ko dégg la dafa am jarign lol docteur dañ ci yeet lu bari ci ne lu munta ñàkk la ci njëlbéenu guddi gi ndax dafay sawarloo aljihaasul hadmi muy machine bi nga xam ne mooy reesal ñam daf koy dimbale di te itam maanaam di di ko aar itam ci ci ci ci ci xëpp deret yu mel noonu moo tax ñu bëgg ñu sopp di ko yeexe ba ci mujj guddi gi nga xam ne day taxa taxawaay ndig asxaabu mooy mooy saxaabi yonent bi sallallahu alayhi ko dañ ko daa yeexe ba nga xam ne li fajar fenk lu lu toll jàng fukk jàng juróom fukki aaya doo nga fi xaj ñu door xëdd bu dee Tuubaa mën ngaa bàyyi ba ñu wax ne fi fukki minute des ci jàpp xam nga jumaa ji dañuy wax ne jàpp maanaam bu bu waaj jotee dañuy wax jóg leen waaj jóg waaj su ndee ba des fukki minute ñu ne wax ci rajo yi jumaa ji ne fukki minute moo des ci jàpp su ne fukki minute fukki minute xëdd xaj na fa bo xëdd fofu moo gën nga xam ne kon xëdd nga ci mujjug mooy yéex nga xëdd su waaye su ndee ba ne jàpp jot na nga arrêté nga arrêté ndax dañu wax ne fukki minute sa jàpp daal di bàyyi su ndee ba jàpp jot ñu ñu yéene waat ne jàpp jot na kon yeexee ko itam mën a xëdd sunna la yeexee ko sunna la ba xay um si mos yu ne solo xadis boobu moo wax ne saxaaba yi den daa bàyyi ba jàng juróom fukki ay xaj ci Euh, des ci fenku fajar ñu a xëdd jël nañ ci Zayd ibnu Saabit radiyallahu anhu wax ne tasaxarna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qumna ila salaati qultu kam kaana xadra ma baynahuma xaala xamsina aaya rawahu albuxaariyu wa muslim Zayd ibnu Saabit nee na dañoo xëddandoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ àggal ñu na jëm ci julli jàkk ji du julli jëm mané ko ñaata dox sun digënté ak julli mané ko jang juroom fukki aaya kon xëd yi nak dana deggo ci lum neew neew neew ki mun da nga deg xamna na am na ñoo dañu mënta lekk njël moom dëgg mun ñoo lekk jël waye nak donte go xam ndox la taxam ndox xëd waye waye lu mu gatt gàtt dee ko def ngir ngir roy sunna donte go xam ndox la wala kaasu meew wala wala wala dogati mburu num neew neew rek lum neew néew lo mas rek taxaw takwa xëd kon dia ko def ngir li ko yéen saa tammi tammi sunna ngir li ahmad solo jël ci abi khudri radiyallahu anhu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam sallam wax na ne barakatan barakatun fala tad'u Walau ay yajra ahadukum jur'atama fa inna allaha malaikatu yusallun ala mutasahhirin nee na yonent saa sam nee na xët de barkele bu leen ko bàyyi donte da kenn kenn day góox góoxum ndox ndax nee na yàlla ak malaakam dañuy julli ci xëddkat yi loolu rek jënd xëdd kon yàlla malaakam dañuy julli ci xëddkat yi julli yàlla mooy mu yërëm la julli malaaka yi mooy ñu dala ñaanal yàlla njëgal ak ak dina ñaanal njëgal suñu borom te malaaka suñu borom du delloo ak njëgalam ñaareel ba eh, ci sunna yi may ta'jilul fitr ta may di gaaw dog bu jant bo leen di jant sona yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ma ne la yasalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr muslim Nian sama xet duñ dañ ne ci yow li feeg ñi nga gawa dog bu dog ci ben riwaya bo bukhari muslim solo wuñ ko dafa la tasalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhiru suhur. sama xeet duñ dañ dina ci aw yiw li feeg ñu ngi gaaw a dog di yéex a xëdd jël na ci abi Hurayra radiyallahu anhu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xaala allahu azza wa jalla inna ahabba ibadi ajalahum fitra rawahu ahmad wa tirmidi yi abi Hurayra yun saasam nee na sun borom nee na ki ma gënal ci sama jaam yi ñi ma gënal ci sama jaam ñi mooy ñi ciy gën a gaaw a dog ñoo ma gënal ci sama jaam ñi ñentel bi sop nañ itam booy dang nga doge tandarma lu sop la ndax li yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon ni na aftara ahadukum falyaftur ala tamrin fa inna baraka fa ida lam yajid tamran fal maa'u fa innahu tahur rawahu abu dawud wa tirmidhi neena kep ci en koy suku nga doge tandarma su ko amul ndax tandarma barke la na amna barke su ko na doge ndox ndax ndox lu lab la sop nañ itam ki ab julit bu dog ci tàndarma na ko def lu tol ben wala ñet wala juroom wala juroom ñett ba ñant ay ndaw ko ndaw ñu ag ci fofaay euh nu tol dal ndax yalla dafa tol te dafa bëgg lu tol ndax yalla ben la te ben da tol te dafa bëgg lu tol inna allaha witrun yuhibbul witra kon loolu eh, li li xikmam nag doge tàndarma ñu sàkk doge tàndarma mooy tàndarma ci ci xolwu la bokk te xolwu dañoo wax ne dafay dëgëral ab gis dafay dafay leeral ab gis te xam nga koor muy ñàkkale xiw dafay lëndëmal ay bët bokk na ci jagley tàndarma nag saa ba àggee ca mbaax gi dafay bàyyi dara su ko defee wala boog mu dimbale ko ci reesal lu fa desoon ci ay xeeti moo tax bokk na li tax xikma bi tax ñuy digle wala sàkku doge tàndarma Eh, ñentel bi sop nañ itam neewal sak lek ak sag naan ci dog ak xëdd xam nga ndaw ko ndaay moom bu jant soy rek dañ fa seen leen rewon ci bëccëg bi lépp ñu dabu ko ci ngoon gi ci doge bu xëddee xëddee itam ñu jël lu ëpp ngir avance lañ leen ndaw raw ci bëccëg bi te suñ boo newoon na wa kulu washrabu wala tusrifu layo la yuhibbul musrifin lekk leen naa leen waaye bu leen ëppal bu leen yàq ndax yàlla bëggu ñu yàq ak li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne maa mala aadamiyun wi'aan charran min batnih doomu aadama feesalu ndab lu yées feesal biiram nen doy na ko sëkk ay tib yoo xam ne dana ca ma dëgëral yaxu di ganaam ba mën a taxaw julli mën a jaam yàlla laa maxaalata faa'ila mu ne kon yén saa sama ne jullit kon day séddale biiram ñetti xaaj benn xaaj bi ngir lekk benn xaaj bi ngir naan benn xaaj bi ngir noyyi waaye soo duyee nag ñetti xaaj yi ba mu fees lekk nga tegaat ca naan nga xam doo mën noyyi sa boo tëddee da ngay nga ni ko ndaw ko ndaay defee loolu du melokaanu ab jullit axrajahu Tirmidi yi aji war itam saa bu feesalee biiram aku ñam ak ndox nday daal di tayal ci jaamu yàlla la ci ëpp fi ne ko du du du du du julli fajar day nelaw rek day lott ci yëngutu nelaw ba du julli mbaa bu munta jàkk julli da koy julli ci tàyyal ak diis bi te saaxulin wa ni ko noonu su fekkee feesalee guddeem yi biiram ci ci guddi gi ñama ndox la ci gën ba day nelaw ba du julli suba day biddanti te julli suba nag mbooleem julli farata yëpp julli suba ci gën julli farata yep julli suba ci gën ci waxtom kon julli bi dafa wara xir ci nek ko sawar ci jox jaamu yalla rawatina nak ci weer wu tedd wi di weeru ko muy weer wi ni deggal motax tax Sëñ Tuubaa Sëñ da waxon ne wala suhur wal futur mumtali al batn fa al ujur wa kullu man amla batnahu taam wa akthara shurba alayhi wal manam fa innahu ma'al bahimati istawa fatahu khairun kathirun fatawa sint manen bol baril sa xëdd ak sa ndogo fessel del sa bir kon def na la xagn ay nen kep ko fessel biram ak ko ñam baril ci am ndox ak nelaw ne ko mo baye may xari ak baye ci mbedd mi ñoo yem képp te yiwu bare bare bare bari dana ko faat ta la man ko jural alkande sint ba tekene wa ba'dhum yakulu al baqari waqta futurihi wa waqta sahari xataa yakuna batnuhu thaqila jiddan fa saara qalbuhu mashgula an dikri rabbihi wa yadda'i siyam wa huwa la yahwi fatilan fil qiyam Sëñ Tuubaa neen ndaw ko ndaay bu ñuy dog dañuy mel ni aw nag aw nag na muy lekk na muy naane neen noonu lañuy ñuy mel neen am na ñoo bu ñuy lekk dañuy mel ni aw nag rek ci waxtu xëdd ak waxtu ndogu ba seen biir yi dafay diis gann seen xol daal soxla leneen la lu fàttali ko yàlla tudd ko ñi wootee naan dañoo war nee na koor googeet lu toll ni fàtte lu toll ni ko ci jëlee ci kon nga xam ne kon ndekk kon lekk bu bari dana xañe yoolu koor kon lu mat a la ci ki wor juróomeel bi sopp na itam ñaan ci waxtu dog ak tagg ca yàlla ca nam ko yayoo ngi sant xéewal xéewalu teggal gém la teggal ab coona ba na fi bàyyi la ci ab yool bu màgg a màgg euh, Abdullah ibn Umar solo jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam wax ne inna lis-sa'imi inda fitrihi la da'watun ma turad aje wor jonne amna ci waxtu dogam ñaan gu kenn du dello manaw waxtu ngi dog ñaan go ñaan sun mundu du ko dello Abdullah ibn Umar taxna bu daan ñaan bu mosaan dog day wax ne allahumma inni as'aluka bi rahmati bi rahmatika lati wasi'at kulla shay an taghfir li yasun sunu mag lay ñaan ci sa yërmande yi nga xam ñepp xaj nañ ci nga jéggal ma akhraju ibnu majah bi sanadin sahih Abdullah ibn Abbas niana. radi anhu man yana kana an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isa aftara allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas alim Abdullah ibn Abbas nee na sa saa sama san dog day wax ne yow sun bo yo day yo rek kan di ci sa gi doge kon yàlla nag nu nangul ndax yaay aji dégg ji tey aji xam ji axrajo tabrani fil kabir sëriñ Tuubaa wax ne joxe ci ak ñaan goo xam ne eh, xeetu jéglu gu mas ñaan gu matale la ci xeetu jéglu wax ne kuy doog na ko wax xamdan liman aanani fa sumtu wasaaqali rizqan bihi aftartu falaka waxdaka ilaahi sumtu ثم بخضرتك قد أفطرت فليغفرا جميع ما قدمت يا غافر الذنب وما أخرت وكلما أسررت أو أعلنت وكلما علمت أو جهلت أنت إلهي لا إله إلا أنت قني عذابك المجلى يوم القيامة بجاه المصطفى وصلي عليه ثم شرفا ni bay du gatt mo di bu nekkoon na ko mokkal sooy dog jangugo ko xeetu jéglu yàlla ne nga ci biir tàmbale ci maa ngi sant sun borom mi ma dimbale ba ma woor te may ma wërsëg bu ma doge yow sun borom yow dong yaa ma tax di woor te ci sa kàttan laa doge yàlla na ma jéggal la ma jiital ci bàkkaar yam ma bàkkaar ya ma def ya, ak ya ma defagut ya ma nëbb ak ya ma feeñal ya ma xam ak ya ma umpule yow yaay sama borom yow képp yaa ma moom kenn kenn moom ma nyan ñaan gu matale la ne ko fekkal ma sa mbugal mu metti ma ëllëg bis penc ci daraje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sallam ñaan googu murid bu nekkoon ko julli bu nek sa wax sa bo doge nga wax ko ndaw ko na moom xasse tim yef yi dañ koy waye nak euh, lo yakkan yakkan te ak lo xex mar mar mar so lekkee tandram bi bal nga jatt ak dara nga jang jang beet yoyu lo am solo la ndax fofa lo fa ñaan sun mom da koy nangu habla ibn Omar wa moy tam da wax musan dog day wax ne dhahaba dama wa talatil aruq wa thabatal ajr insha Allah taala Abdullah noonu ne yonent saa da ko da wax su musan dog moy wa dem na ak xif ba ñak wa fendi na tayor bi dess na fi insha Allah lol ak sant yalla la tabrani wal hakim. juram benneel bi sunnal nañ itam ngay baril ak jaamu yalla ci waru koor man nga yok say jaamu yalla bari loo cee sarxe bari loo ci rafetal jëme ci say bokk rafetal jëme ci jirim yi ak miskin yi ndax topp yàlla ci weeru koor am na may gu màgg a màgg yoo xam ne ëpp leen na ko mboolem weer ci des yëpp cay ngëneel moo tax yonente bi sa alayhi suma su ma saan agsi da ciy dolli ak farloom dolli jaam yàllaam ci xeet yu wuute rawatin nag ci fukk yu mujj yi nga xam ne moo moo ci gën gën caa màgg nga xam ne ta ci la gën feddali jaam yàlla day day këram ak ay soxnaam guddi ngir ñu bokk di dundal guddi ci fukki fan yu mujj ci salman soloona ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne man fattara saa'iman ala ta'amin wa sharabin min halalin sallat alayhi fi saati shahri ramadan wa salla alayhi jibrilu laylata xadra axrajo tabarani fil kabir salman nee na yonent bi sallallahu alayhi wa Kepu ku dogal aji wor mana ku wor ba ngon nga jox ko lum doge mo xam lek la mo xam do di benn tàndarma mala tamit lu lew nee ka def loolu yal malaika yi dañuy julli ci mom ci waxtu yu gi suñu àggee ci guddi lay doxati jibril julli ci mom kon lu mag mag la dogal dogal aji wor juróom ñaarel ba jaadu na ci aji wor ji mu fek ay ci lepp lu yalla tere na ab jisam moom ci xool lu haram bu mu xool jàmbur yu yi bu mu xool lenn lu haram bu mu xentu senu xet na fek aw ñan ci fen ak jew ak rambaaj ak saga wax lu ñaaw na fek ab deggam ci degg lepp lu lu koy soxla way tuddu yalla bu mu lu koy jew bu mu lu misik bu mu lu len lu ko du ci yalla lolu donte dafa xaraamoon naka jek ci bis yep ak guddi yep haram nga day gëna fet lu day gëna tarbu ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wax na ne man lam yada xawla zuuri wala amala bi fa laysa lillahi xaaja fi ay yada taamu wa sharaba képp ku bayul bayul ak jëfi neen yàlla soxla ci mi bàyyiti lekkam ak naanam mooy yàlla soxlaatul koram azzuur wa kullu xawlin aw fi'lin yuxaalifu shara mooy jëpp jëf ju wuteeg rek ca wax ak jëf mooy zuur jëpp jëf joxan dàqonte nag jaamu yàlla ruux googu di dafay wàññi ab yoolam mën naa dem sax ba far sippi ab yoolam mooy dur ci far am dara ndax koor dara taxu ñu yoonal ko lu may li tahdibi nufus wa taqwimil axlaaq wa tatxiril xulub wa tanqiyati ruux wal jasad min tax yaan ma def dañ ko def ngir ngir yar bakkan ngir sellal bakkan ak jubbante ay jikko refar ko rafetal ko ak laabal xol ak setal ruux ak yaram ci lepp lo xamne ne mbewte la ak njaxase banex yi nga xamne da fay and ak eh, bakkanu do aadama ngir sata lol tax ñu ñu ñu ñu kor kon bo waree ba di def yoy na kon kor do ñu jani mo tax sintu ba wax ne summa siyam fantabih lam yanhasir fi adamil akli faqat la taxtarir fa rubba sa'im ma aljamaa laysa lahu fihi al majaa nee na nga xam ne koor yemul dong ci bàyyi lekk ak bàyyi naan neen bul waru neen baraane koy war ànd ak mbooloo mi te kooram googu lu may ëpp xiif du ko ca topp yal nañ ci yàlla musal fa sawmu ay ma yufdi fatan li sahwi wa samima al kalami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklil bin olima nena nena wor dal woor daal Sëñ Tuubaa nee na woor cër yépp dañuy woor ci lépp leen di julal njuumte sa bët yi bo waré nag leen bul ci xol haram sa tanki bul ci dox jëm ci lu sa nopp bul ci déglu haram salam yi nang ko téye ci wax lu haram ba ci sama xel sax nang ko dënk bu ci xalaat xalat lu haram xalat xalat lu ñaaw képp nee ni nga bàyyee lek naan na ngeen ne yoyu baba lay do tuddu kor ndax ragal yalla la sun boom julli ci fartal gi bëgg ñu ragal yalla ta ragal yalla mëno ko def te samonté ak ayu yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus kam kama kutiba alal lazina min la la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun yoyu nga xam moy moy resultat koor gi mom lañ sakku may la alakum taj'aluna li anfusikum wiqayatan min adhabin nar may ngeen ngeen ngeen ngeen def sen sen jëm sen bakkan muy muy len di fegal sawara mbugalum sawara ëllëg bis penc ak lépp lu yàq yaram wala ruux fii ci àdduna nga moytu ko loolu mooy taqwa gi lépp lu yàq jël nañ abi xurayra radiyallahu anhu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laysa siyaam min al akli wa shurbi innama siyaamu min al wa rafas fa in saabaka ahadun aw jahila alayka fa qul inni saa'imun inni saa'imun rawahu ibnu xusayma wa ibnu xabbaan nee na rek Bayi lek nande, de nee na woor mooy da ngay bàyyi lepp luy neen xam fi ne bu ko di jub fi ne maanaam table lido yooyu ci lay gëna jaar jar table lido yi fi ne day dox lol bu koor jegee dañu xam ne lol neen la ci nan yi la bok li sank jëf koor mu kon moy nga moy becc bo xam do ci jëlé dara ak nak rafas muy lo ñaaw ci jëf ak ci wax mooy jaxasoog jigéen ñeeg yu mel noonu mooy rafas nen ku ñëw bëgg a yow mbaa mu wax la lu mu la wër wax nee ko man damaa woor man damaa woor am nag yoo xam ne ni ko ci woor yoo ne may nañ ko ko woor mu def ko lu dagan la ki woor ba ngoon tàngoor wi metti sañ naa dem xëppoo ndox wala mu sotti ndox mu sedd ci bopp bi wala ci yaramam walla mu gàllaxndiku wala mu saraxndiku jëleen ci abdourahman ibnu abi bakar abdourahman ibnu abi bakar mu ne lenn ci saxaaba yi yonente bi sallallahu ko kenn ci ñoom nee na ko te bokk na ko wax ne ko wala xad raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yasubu ala rasihi lmaa wa ko gis naa yonente bi sallallahu alayhi sotti ndox ci boppam te booba dafa woor xawma nag aw la wala tàngoor wu ñaarel ba daganal nañ ci ko war bu fekkee dafa am janaba ci guddiga sañ na xey janaba ja samé ngantul kon day melni ni da fay lu yaatu lo xamne ne waxtane ko ci benn jotaay du yomb xamna dañu tejj fofu re inshallah allah suñ desee beneen xam ci diin inshallah gën ci yaatal ban ci xosu baaxa baaxa a baax ci leral lu ci mata leral rek inshallah dañ ko leral ñu ngi la dox di inshallah ci benn aljuma seen mbokk seen mbàkk li ci ci micro bi ci caméra bi ñu sant bu baax a baax seen Abdou Ndiaye mi ñu ci nekkal réalisateur seen Cheikh Samb eh, production seen Ali Badara Ndim ak programme seen Ibrahima Gueye sant itam waa Rési eh, di gërëm ñi ñu doon seetaan ñëpp yàlla ñu ngi ñaan liggéey ci ne yàlla suñu doon defal defal leen gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. عبدا قديما له بالفرد والسنن وشات كل إله الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن